messieurs leurs ministres et leurs collaborateurs chers collègues honorables députés maa ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen ci seen tour ak seen sant monsieur le ministre des finances Mamadou Moustapha Ba maa ngi lay féliciter session budgétaire bi deux mois un mois et demi yi ñu liggéey wone na sa comportement exemplaire sa compétence avérée ak sa explication yu leer yoo xam ne ni ñëpp dañuy comprendre bii mooy suñu ñaareeli session budgétaire depuis le 12 septembre 2022 ñëpp gis nañ ne session budgétaire bu ci nekk on s'éloigne de plus en plus de la violence on s'éloigne de plus en plus des outrances des invectives suñu réew suñu assemblée bi ak suñu réew mi mu ngi redevenir ni mu meloon Sénégal bi ñu xamoon Sénégal d'ouverture Sénégal de tolérance Sénégal de teraanga ñu ngi koy gis de plus en plus mënuma terminer sans remer sans parler de mon camarade Samba Sy ñépp gis nañ ne sàmba si il est assidu ñépp gis nañ yaru Samba si ñépp gis nañ ne rare fois yi nga xam ne nii day wax waxam toujours dafa ànd ak profondeur dafa ànd ak pertinence nekk ak mag mu yaru dara gënu ko neex di liggéey encore ak mag mu yaru moo gën a neex encore am naa occasion am naa honneur liggéey ak Samba si au niveau de la CDS au niveau de la gauche plurielle au niveau de Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ni moom la ñu bokk sàmb si structure yooyu yépp suñ la gisee nga teew euh, ni ngay defee dañu ci fier moo tax ñu ngi lay gërëm di la sant kenn mënta gërëm Moustapha Ba ak sàmb si te gërëmoo ki leen tànn muy le président Macky Sall moo tax ñu ngi koy sant di ko gërëm di boole ci gërëm googu le président de l'Assemblée nationale dama ko jël ni sàmba si ci yar bi fois même timidité teey bi dal bi plus le secretaire général ak toute l'administration de notre assemblée le personnel civil et militaire maa ngi leen di sant di leen gërëm